ci li ñu tàmbale woon démb muy roy ak romb te mu tege ci xam-xamu shariha ak xam-xamu xaqiqa ne ma koy faral di waxee rek mag ñi de seeni wax ak seeni jëf lu mat di xeeñtu la ndax ñoom day dëgmaloon nañ yàlla ànd ak sëriñ Touba ba am ngërëmul yàlla kon yaakaar naa ku jaar ci seen mboor suñ borom mën na laa dimbale te ñoo xam ne nii day eh, ndax sëriñ Mor ak Serigne Malick Serigne Touba noon na leen. wax na ko soxna Faat Ja wax ko ñeneen ne leen yéen day yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggoon na ngeen bokk ci ñooñam waaye man la leen sama borom jagleel kon nag yaakaar naa ñoo xam ne ne yonent bi bëggoon na ñu bokk ci ñooñam suñ borom jagleel ko sëñ Tuubaa ñuy ay taalibeem ñooñam mat nañu roy te bu ma leen waxee waxaale naa mboolem eh, seex yi àndoon ak Serigne Touba ndax ñoom ñëpp ay géej la woon dañoo eh, du yoon ba fees dell la Euh, seen xikma yi nag mooy roy ak romb dañ ko doon wax démb mu tege ci xam-xamu shariha ak xaqiqa nit lépp loo gis mu koy def tem leer la euh, tege ci xam-xamu lépp loo gis mu jaaxal la te xamoo lu mu doon rombal ndax benn mu amuk may di ko def wala muy mooy di ko def te lu ci doon rek moom la yitteel ndax su borom tabaaraka wa taala day wax ne dénk naa leen seen bopp yéen jullit ñi euh, daal daal di wax ne jubadi jubadi ku jubadikat loram du leen wàññi dara bu ngeen jubee yéen am anfusakum laa yadurrukum man dalla isahtadaytum di la waxaat ne bàkkaarub jàmbur kenn du ko bindal kenn wala taziru waziratun wisra uxra kon nit lu mu def gannaaw moom bu dee lu muy amee bàkkaar moom lañ koy bindal kon yow loola warulaa yitteel lala la war a yitteel mooy lu baax la ngay def di ci am aw yiw ak lu bon la ngay wattandiku di ca di ca di am bakkaar kon loole nañ ko sàmm bu baax a baax te xam-xamu sharia ak xaqiqa dañoo bokkut yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne bi mu rañaanee suñu borom tabaaraka wa laa jox na ko fa ñetti xeeti xam-xam benn bi jaadu na mu xamal ko euh, nit ñëpp te xamal leen lépp bu mu ci denc dara te bu ko dencal kenn loolu mooy xam-xamu sharia te loolu dafa bokk ci xaqi yonent yi alayhim salaatu wasalaam moom la sëñ Tuubaa di wax naan wa annahum yajibu fi xaqihim uh, sidqun amaanatun wa tabliquhum wa kasibun xiyaanatun kidmaanu harramaha alayhim dayaanu mu ne ñaareelu xam-xam bi bu gisee ku soob mën na ko ci xam la ko soob loolu mooy xam-xamu xaqiiqa ci la jullit ñi rawante asaabiquuna bil xayraat ci lañuy rawante ñetteelu xam-xam nag araam na mu xamal ko keneen diggam ak boroomam rek la dox kon xam-xamu shariha ak bu xaqiiqa bokkuñu loolu tax na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci sulhal Hudaybiya bi muy bindanteeg yéefar yi ay accord tey jël li gën a suufe mu niru ne di leen jox li gën a kawe Seydina Omar ibnul Xataab da ca tàng ba dem ci Seydina Abubakar ne ko waaw du ñun ñoo nekk ci dëgg mu ne ko aakay ah, mu ne ko du yéefar yee ne ci fen mu ne ko ah kay mu ne ko waaw lu tax ñuy jël li gën a suufe di leen jox li gën a kawe Seydina Abubakar ne ko giñ naa ne kii yonentu bi yàlla la mu ne ko man it kay seede naa ne yonentu bi yàlla la daal koy romb dem ci yonent bi ne ko waaw du ñun ñoo ne ci dëgg mu ne ko ah kay mu ne ko du yéefar yee ne ci lurut dëgg mu ne ko ah kay mu ne ko waaw lu tax ñuy jël lu suufe la di leen jox li li kawe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Omar ndax gannaaw bu yàlla ak yonentam àttee ba noppi day am dangay am loo cay xebet Seydina Omar nee na bi mu ko waxee mu mel ni sama nopp yi dafa sedd guy ba léegi bu ma ko fàttalikoo duma dañ di jéggul suñu borom kon yonent bi booba xam na lu Omar xamut ak lu jullit ñi xamut loolu moo tax juyoog sa kilifa euh, baaxut te wóorut tamit moo tax day wax na képp koo xam ne ab jullit nga moo xam bu góor wala bu jigéen bu yàlla àttee ba noppi waroo ca amaat geneen tànn